jërëjëfe sëñ Touba jërëjëfe sëñ tubaa barkeb sëriñ Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi nekk ci biir senegal yi yépp ak yi nekk ci bitim réew yépp rawatina bokki taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Moustapha Guèye taalibe sëriñ Moustapha Massamba soppeb sëriñ Mbàkke moom maam soxna loo Jóob di ànd ak sëriñ Cheikh Aliou ci liggéeyal Cheikhul Xadim moo del siwaat ànd ak ak cant gu sori lool ci sama xol di mbégte tey ñaan yàlla rek mu tasaaroo ci àddina sépp ba kenn ku nekkit yëge ko ni ma ko yëge ngir liggéeyal sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba Xaadim Rasul bokki jullit yi képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa yaa xam foo ko mën a waxee ñoo ngi sàkku ci yow nga ñaanalal nu sëriñ Muntaxa Bàkke moom cheikh Mouhamadou Bachir mu seexul Xadim suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla defal ko ci lu kawe njortam sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla dolli ngërëm sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla dolli ay xéwal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na am ndam ci xilaafam gii sëñ Muntaxa Mbàkke yal na am ndam ci xilaafaam gii sëñ Muntaxa Mbàkke yal na ko yàlla dimbali ba li mu yéenee lëggéeyal sëriñ Touba yàlla defal ko ko comme nam ko defale woon Cheikh Mamadou Moustapha ba ci sëñ Sidi Mokhtar mii nga xam ne ci moom la topp sëñ Muntaxa Mbàkke ku bëgg lu baax a ngi nii sëñ Muntaxa Mbàkke ku rafetub xol a ngi nii sëñ Muntaxa Mbàkke ku yéene nit ñi jàmm gi nii sëñ Muntaxa Mbàkke yal na am ndam ci xilaafam gii yàlla na ko ci yàlla defal lu faw lépp lu fi mas a jaar ci barkeb sëriñ tubaa maamam ja ak mboolem njabootu sëriñ tubaa gi nga xam ne ay rakkam lañ yoo xam ne seen waajur ya noonee lañ toppante woon ba ci kii ngeen gis mu toog muy sëriñ Seex moom sëriñ Saalihu Mbàkke sëñ Muntaxa Mbàkke ci wayafam ak bëgg ndam ak bëggal àddina bépp jàmm yéene ko jullit yëpp rawatina taalibe sëñ Tuubaa yi moo déplacé këram ba ñëw ci kër Serigne Saliou Mbacké fekk fi xalifaam bu tedd bii di rakkam sunalu ko dara ci dara noppal ko ci lépp duñ tere dara ba gis ko ci waaye lépp lu ñuy digle ma nga ci jiitu muy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacké moom it yàlla na fi yàgg te wér ak njabootam Serigne Saliou lii de duñ na guleet ndax def na ko kër Cheikh mu Moustapha siyaare ji Serigne Ahmadul moxtaar te bo bi mu nekkee xalifa général des mourides waaye def na ko kër sëñ Maam Mor mu Cheikh Mamadul Mourtada muy lu am solo solo solo solo muy aspect bu am solo boo xam ne nii war naa jàngal nit ñi ak woyof war a jàngal nit ñi ak yaatal tey mi ngi nii toog ngeen gis sëñ Cheikh a ngi nii toog manto bii mu sol toog wax nañ ne sëñ Muntaxa Mbàkke mii moo ko ko jox manto bii sëñ Seexum sëñ Saaliwu sol wax nañ ne sëñ Muntaxa Mbàkke mii moo ko ko jox bi mu dikkee ba pare toog ci kaw te gis nga sëñ Muntaxa ak cofeel gi mu am ci kër sëñ Saalihu Mbàkke ak cofeel gi mu am ci sëñ mii ak noppal gi mu ko noppal tax na lépp lu mu def ci sëñ Cheikh xeeb na ko manto bii nga gis ne sëñ Cheikh moo ko sol toog ci suuf doonu taalibe wax nañ ne sëñ Muntaxa mbàkki mii moo ko ëndaale jox ko ko kon moom it yàlla na fi yàgg te wér ak njabootu sëriñ Saalihu Mbàkke gépp ak njabootu sëriñ Touba gépp ak taalibe sëriñ Touba yépp ak jullit yépp réew mépp am jàmm yàlla na sëñ mun Muntaxa am ndam yàlla na sëñ mun Muntaxa am ndam ci xilaaf ak sëriñ Tuubaa na sëñ Muntaxa am ndam ci xilaaf sëñ Muntaxa gi yàlla miy borom jàmm te comme may jàmm nga am jàmm yàlla na jàmmal murit yëpp jàmmal jullit yëpp jàmmal réew mépp ba sëñ mun Muntaxa am espace bu mu liggéeyale sëriñ Tuubaa te dara bañ ko gàllankoor yàlla moom am ci daraje sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla dimbali ci daraje sëñ Tuubaa lim bëgg ci liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na ko liggéey ak nim ko yéenee ànd ak taalibe yi yàlla na ko am ak ni ko yéenee liggéey bokkam yi yàlla na ko am ak ni mu ko bëggee ànd ak julliti Sénégal yépp ak julliti àdduna bépp yàlla na ko am ci dara ji Sëñ Tuubaa lii de ab jéego la bu amati ci yoonu murit ñu di ko rafetlu lool ndax ànd ak say bokk jubóog ñoom doon seen kilifa lenn lu ko dàq de man xawma ko ndax jàmmi nen la jàmmi nen la jàmmi nen la jataay bi jàmmi nen la te defoon na ko defati ko defati ko kon maniinam la yal na ko ko yàlla gën di man loo ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko ko yàlla di man loo ci darajey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul yal na ko ko yàlla di man loo ci darajey Cheikh Mamadou Bachir waajuram wa yal na ko ko yàlla man loo ci darajey képp ku baax ci barkeb Seydina Muhammad wasalaamualeykum